ambassadeur bu États-Unis dañ fa am ay gan nag ay élèves yoo xam ne ñu ngi Kennedy ci kanam tudd dañ leen dala ci plateau Kouthia Show ñu euh, invité leen pour ñu wax seen programme nan lay demee ambassadeur États-Unis nee na marche bi nga xam ne opposition moom la def si démocratie bu fekkee am na nañu seeti moom américain bi lan lay wax ñi nga xam ne ñooy fas yéene ñëw foofu pour marche ndax ànd na ci war a àndu ci ñu seeti ambassadeur bi nga xam ne africain la de mais ay papam ak yaayam États-Unis <laughs> na ñu fekk baax moom mu am nationalité américaine nekk africain de parce que turam rek boo ko déggee xam na ne Congo gii la ay maama soxe ko ñu seeti ko moom lan lay wax ak lan lay araftu ñi nga xam ne ñoo ñëw pour marché le 23 bii di àjjuma ambassadeur yes yes yes yes yes yes yes yes yes okay okay get to the getter yes yes you know you know yes yes welcome to tonight's is nice good morning good morning oh, yes yes Sénégal dëkk because I come Sénégal

I'm hungry. Because the prophet is not ready. Okay, you come back yourself. laa ilaaha illallaah. su ma waxee tuuti parce que américain yëpp dégg nañu wolof. bakkan jaamu la bëgg bu fekkee ne bëgg ngay dund. bu dee mën na ko am. ñoom dañu am lu leen naqari. nga ni so because moo tax ñu bëgg ñëw yes pour ñaxtu. ok no problem. is not problem. bu fekkee ne loolu moo leen tax a jóg. kese. mun nañu ñëw no problème. amul cher amul amul yes you know sànni xeer is not uh, bad ken saga is not yuuxu because problem is Bargain Western. yes no problem bu fekkee ne dañu ñëw pour yee fitna. ah non it's not Kenyan fit unis loolu duñ ko aayee. su neexee nga taxaw ci buntu dëkk pale bi. nga di def la neex kenn du la tere. la ilaha illallah. yes ok waaye loolu est-ce que Africa because Sénégal. Ah? ñoom dañu koy aaye. ndax boo duggee ba États-Unis ba ci ambassade bi yaa ngi États-Unis. la ilaha illallah. ok because. Ah? the problème Sénégal. is democracy level to democracy West Africa li nga xam ne moo xew bu ñu ñëwee ñu wax ma ko dama def rapport yónnee ko Mr Donald Trump. la ilaha illallah. kon. bu ñu sànni xeer. nga bu ñu yuuxu. bu ñu indi coow. Oh. nangu naa leen ñu ñëw ba foofu jox li ñu war a jox ñu dem seen yoon. la ilaha illallah. ndax borom kër. borom kër. bu fekkee ne moom moom këram. yow nga nekk ci biir këram. dégg lii lu ko neex rek loolu ngay demee. d'accord man États-Unis dama leen représenté. waaye Macky Sall ñun ñëpp mooy suñu président because ñun ci dëkkam. ok nooraaw. yéen a ngi comprendre. liñ leen di aaye. ñun suñu dëkk dañu ko daganal. nga ni. leen di tere. ñun suñu dëkk dañu ko daganal. waaye comme que dañu ñëw ci dëkku jàmbur. because ñun duñu wax ne Macky Sall nii ngay def war a nii ngay doxalee. billaay oraay ok donc no problème. dëgg li mooy wax ne so bu ñu ñëwee ba foofu. mun nañu bañ a accélérer bu ñu defee signe dinañu gën a jël li nga xam ne mooy seen ñaxtu ñu daana koy yóbbu ci États-Unis président Donald Trump dina ko doon. kon anglais baa ngi waaye non non is not. yes. yes. yes non non it balaa ngeen ci loolu moo tëj li nga xam ne mooy programme bi. dégg lii li may baañ mooy ku sànni xeer. barke yonent bi ku wax wax ju ñaaw. ku saaga ku def loo xam ne dañu ci loolu. Oh, Africa is debt, liberté programme démocratie no problem. hay nu pass is a back in way. dégg is night kon. no problem is bikin kon Messing loud. La ilaha illallah. Democracy Africana we still messing loud. Barko yonentidi. Yes, slow down. Déggal Get to the ghetto. Déggal li. And then one can bow. Oh. It's back in problem. Oui. Fix is now no problem. La ilaha illallah. Seeking storming, storming, storming down. Oh. Get to the ghetto is a storming down. Okay. Yes. yes.